ñu daal di doore xibaar yi ak lu ñeel euh, mbirum capitaine Touré capitaine Touré nag nee nañu dañ ko déglu ci kanamu doyen des ma xam Diallo ginnaaw bu mu dégloo Ousmane Sonko ba noppi nga te avocat Ousmane sonk yi doon sàkku ñu déglu ñëpp ñi nga xam ne rek euh, taqe nañu wala ñu laale ci boobu lépp dossier bokkoon na ci capitaine capitaine Touré mi nga xam ne sàkku woon nañu ñu déglu ko mujjee nañu leen daal di nangul boobu lépp requête euh, ba danañu ko déglu ci àjjuma bi moom capitaine Touré ngir. Uh, coow li nga xam ne rek bëgg nañoo xam ci pandaw nga ci diggante Adji Sarr ak usmaan Sonko moom moo yoroon boobu lépp dossier ba ñu dal di ciy tekki ndombal tànkam Cheikh Bara Ndiaye def na ay révélation yu doy waat ci maître El Hadj Diouf ci euh, jour audition Ousmane Sonko ca tribunal euh, te ñu gisoon ko fa muy bagante dem ak dikk mel ni ku nekk ci ab défilé Cheikh Bara Ndiaye nag nee na Ousmane Sonko taxu ko woon jog dafa fekkoon jour boobu maître El Hadj Diouf amoon na lu ko doy sëkk mu bëgg tubay soxnaam la ñu doon toppee wàllum détournement ci ab xaalis boo xam ne rek dañu ko koo tuumaal ñu waroon koo daal di àtte ca tribunal ci boobu te ñu renvoyé ko comme ni ñu renvoyé yeneen audition yi fa waroon yëpp wala yeneen at yëpp ndax euh, audition bu Ousmane Sonko ci looloo taxoon maître El Hadji sax dafa mujjee woon euh, di xuloog ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, juge yi ndax lan moo tax Ousmane Sonko rek di tax ñuy renvoyer yeneen audition yi looloo taxoon mu ñëw kenn faalewu ko muy wane boppam di wanewu ci loo xam ne rek ba ko journaliste yi gisee kenn faalewu ko ngir mu créer bës moo taxoon mu doon def yooyu lay vidéo di bagante ak di dem ak dikk looloo nekk kàddu Cheikh Selbé Ndom def na ay révélation yu doy waat ci nguuru président Macky Sall ci lu ñuy lam-lamee ndax président Macky Sall dana postulé wu 2024 ngir nekk président am déet Selbé nag nee na waxul postulé bu rek waaye moom mooy nekkaat président 2024 maanaam ñetteelu mandat ñu wari di lam-laame président Macky Sall dina ko am lu leer la loo xam ne kenn fayu ko ngir muy toog di wax kenn jox ko oto kenn jox ko ci kër xaalis naka noonu la mu gis rek la wax comme ni mu ko gisee woon ci Abdou Diouf ak Ablaye Wade noonu la ko gisee ci président Macky Sall ndax gis na ko mu yor ñetti kees moom ak soxnaam ñu toog ci noonu la Khalifa Sall ñëw yóbbaale genn kees ga looloo tax rek mu jàpp ne président Macky Sall ala kuli al dina am ñetteelu mandat ñu daal di àddu wax ci leneen mu di lu jëm ci conférence ci euh, manifestation euh, bi nga xam ne waa COLIDEP doon nañ ko amal tey euh, mu di collectif pour la libération des détenus ca place de l'indépendance la ñu ko doon defee ngir ñu libérer détenus yi nga xam ne ay détenus politique lañ ci noonu rek la ñu gis ne jàppante mujjee na fa am affrontement yu métte métte ci diggante membre collectif yooyu ak takk der yi ba ñu jot ca sax teg loxo fukk ak juróom-ñaar ci ñoom ba daal nañ leen di euh, nëbbu jant bi ci noonu le membre collectif yi dal di xam ne rek ne li enlèvement la euh, kidnapping la te lépp politique moo ko lal te ñoom duñu tay ci biléb xeex tànk ñu bëgg amuñu ko ngir ñu euh, bàyyi di jàpp ay détenu yoo xam ne politik moo ko waral anniversaire u Serigne nañu ko ci juróom ñeen fukki ak benn yoo xam ne rek daal dina koy am ginnaaw bu mu juddoo ci atum 1932 waaye itam mu nekk xalif général di tiijan ginnaaw bu mu uto Serigne Abdou Aziz si Al Amin ñu koy ñaanal moom Serigne Mbaye si Mansour yàlla na dund te ànd ak wérgu yaram ñu dem ci assemblée nationale daal di wax ci euh, Pape Diop mi fi jiite bokk gis-gis nekk député ci quatorzième législature gi waaye itam euh, mu fekk ji woon président Macky Sall euh, ci ñu fas am quatre-vingt-trois députés ngir majorité ba amu ah, juróon fi coow moom Pape Diop moomu nag moom moo daal di mujjee démissionné ci assemblée nationale. li waral boobu lépp démission nag kenn xamu ko waaye déposé na lettre démission ci euh, taabalu maître Amadou maam Diop mi jiite assemblée nationale ba bu ñu xoolee nag ci lu ko ñeel ak yenn question yi nga xam ne ni ñi ñu ngi ko ci daal di amal lan moo tax euh, euh, Pape Diop daal di démissionné mu nekk loo xam ne lu euh, kenn xamagul lan moo xew waaye Amadou Mame Diop nee na ay ay raisons personnelles yu Pape Diop moo tax mu dal di démissionné waaye ñeneen ña jàpp nañu ne leneen moo tax Pape Diop moom mu démissionné lu bokkul ak yi raison personnelle bokk na ci nee na yenn comportement yi muy gis ci assemblée nationale ba neexu ko te bu tey. aw turam ak turu ñenn ñi duñu lëkkoo bay bokk sax fu ñuy euh, daje. ay Tall Sall tontu na Ousmane Sonko ci euh, démb conférence de presse bi Ousmane Sonko doon amal mu dal cay àddu nag e, di wax ci euh, ma xam jàlloo di doyen des juges bi nga xam ne woo ko doon teewlu ak ay Tall sàll am na ñoom ñaar ay complice lañu ba Maham Diallo tuddee na ko doom Aïssata Tall Sall nag daal dinay weddi kàddu yu Ousmane Sonko yooyu ba mu set wecc comme ni ko Sénégal titré Aïssata Tall Sall demande demande Ousmane Sonko nee na mësul xam doyen des ma xam Diallo lu dul ni ko ni ko nit ñi xamee noonu la ko xamee ci image wala ci aw tur mësuñoo gisante mësuñoo tegante loxo bay nuyoo mësuñoo seq dara ba mu koy tuddee doom nee na xamul lan moo tax Ousmane Sonko yëkkati lay tuuma daal di koy teg ci kawam ci diggam ak Maham Diallo. ñu dal di addu wax ci leneen mu di euh, vidéo bi nga xam ne Kaliphone Sall def na ko ci Adji Sarr euh, te mu mujjee nekk bës ku nekk di ci yeey di ci yàbbi mu ne Adji saar ci boppam euh, jaam la ndaxte ba mu koy jàppale kenn fay ko xaalis comme ni ko ñu bari waxee dañu ko jox oto ak kër ne nañu yëpp dara amul ci daf doon jàppale Adji Sarr ko jàppale ci dooleem te yàlla tax waaye Adji Sarr nitu intérêt la ndax ba ma nekkee ci jafe-jafe ñu jàpp ma prison sama sœur décédée ba tey Adji Sarr woowuma téléphone waxuma dara euh, ba tax rek man may supprimer numéro am ba noppi bloqué ko fépp noonu la ko defee ci ab live boo xam ne daal dina koy amal Californie yemul foofu def ay révélation ci vidéo yi ñuy wax ne Adji Sarr daf ko yoreel Ousmane Sonko waaye itam ay vidéo yoo xam ne ay vidéo pornographique yu Ousmane Sonko Kaliphone weddi na yooyu yëpp nee na dara amu ci Adji Sarr ak i nitam yi toog di wax ne yor nañ vidéo yi Ousmane Sonko ken yoru ci dara dañuy euh, wax lu leen neex ngeen di manipuler sénégalais yi ba ci vidéo boo xam ne Adji Sarr yónnee woon na ko sax ci wàllum montage vidéo ak Ousmane Sonko ci la ko xamale rek ne ko lii boo ko yóbboo tribunal yow yaay daanu yaboo nga jël wax ji teg ko ci suuf ba ci sax ñi toog di défendre Adji Sarr di attaquer Ousmane Sonko eh, ci ay ministre ay DG di wax ne Ousmane Sonko yor nañ ay vidéom nee na ñoom tay ñu ci di laaj Adji Sarr ndax li aji di wax dëgg la ndax yor nañ ay vidéom déet ñu ci avancé eh, te amuñu ci dara lu leen leer nee na Adji Sarr yorul benn vidéo Ousmane Sonko eh, ce qui veut dire que ni rek moom Khaliphone Sall nee na raxasu na ci mbir wi ba set ci wecc ba ci sax dóorante Adji Sarr bi mu doon dorante ak Gabriel Kane yooyu yëpp Khaliphone Sall daal dina ciy dellu si waat yaatu mu teg nag ne euh, yëf yi pare na ci dootu ci wax dootu ci def dootu ci dindi mbirum Adji Sarr yoonam nekkatu ci waaye ñi toog di attaqué Ousmane Sonko ci diggam ak Adji nañu dem défendre bilan bu président Macky Sall moo gën bu ñu toogee ci yenn plateau télé yi wala site internet yi toppee fa Adji Sarr Ousmane Sonko. Maître El Hadji def na conférence de presse ni ki euh, démb diggam ak taskati xibaar yi ndax gis nañu jour audition Ousmane Sonko ca tribunal euh, jot na fa dal di annoncé na dana amal ab conférence de presse na mu ko waxee woon noonu la ko defee euh, mu mel ni moom Ousmane moom président euh, moom Maître El Hadji Diouf Ousmane Sonko xëyee génn rek mu daal di gontu génn démb nag daal dinay weddi Ousmane Sonko ne Ousmane Sonko c'est un manipulateur moom ak ay avocat am li ñuy wax yëpp ngir manipuler sénégalais yi ndax gis nañ Ousmane Sonko di nettali ba ci sax kàddu yi nga xam ne jot na kaa jokkalante ak cabinet des wala sax ki nga xam ne moom moo représenté woon par bi foofu te Ousmane Sonko ne du ko tontu maître El Hadj Diouf nag nee na yooyu yëpp ay manipulation la li fa am avocat yi waxuñu ko ci li nga xam ne rek moom moo tukkee ci diggante Ousmane Sonko ko doyen des ba ca bureau ba mu wéy di wax ne rek Ousmane Sonko ci boppam am nañ ay preuve ci moom yu wane ne rek moom moo dal di sàkku kile di Adji Sarr ñu jeexale xibaar yi ak réaction supporters yi gayndey euh, Sénégal war a dem bokk ci coupe du monde bi fas yéene tàmbali euh, ñaar fukki fan ak euh, ñaar ci weeru novembre gi ñu nekk ba le 18 décembre ñu gis na rek liste bi ba tey génnagul supporters yi nag daal dinañuy teel a dànkaafu Aliou Cissé di ko xamal ne Elimane Ndiaye dafa war a dem éliment Ndiaye dafa daal di tàmbali di marqué empreinte am ci lu muy def mu di saison bi rek saison wam la ku ñu war a mën di coupe du monde la ba ci neuvième biom bi nga xam ne marke na ko euh, ci euh, seen digg ak euh, Bristol City kile di Elimane Ndiaye jamono ji joueur bu taxaw la noonu la ko supporters yi Sénégal yi daal di réclamer kile di Aliou Cissé ñu daal di cay teg ne boo Elimane demul ñoom du ñu dem du ñu supporter li la di équipe bi waaye ñu ngi toogani di xaar fii nekk le 11 novembre gi ñu nekk Aliou Cissé daal di publier liste 26 joueurs yi war a dem. ca Qatar euh, mbokk yi ñu doon euh, déglu di ñu taataan ci biir euh, net bi TV Sénégal fii la ñu leen di tënkale tey bi la jotaayu xibaar di leen jox dig daje ëllëg incha allah.